man la Ibrahima Thiam Gaye mu nekk le président d' organisation de Barham Corporation mu nekk benn pàcc boo xam ne moo nekk ci biir Barham Corporation di gérer tout ce qui organisation tout ce qui dans l' waaw ñu ngi ci waajaay gàmm gi mën naa ne sax ñun ñu ngi ci biir gàmm gi parce que Barham Corporation dafa baaxoo di initier di def benn projet bu ñu wax yeesal yeesal comme son leen l'indique benn projet la boo xam ne. dañ ko teg pour na Baye pour defar Medina Baye defar Kaolack du moyen général parce que am na yeesal Medina Baye yeesal Kossy yeesal ba yooyu ay projet en perspective la mais yeesal na Baye bi ren mooy cinquième édition ñu koy def depuis 2019 ñu ngi ci su gàmmu jublusee comme ni ko suñ sëriñ doon defee maanaam Cheikh Ibrahim Niass la anhu xam ne su gàmmu jotee dañuy taaral dëkk bi voilà dëkk bi set dëkk bi sell gan yi bu ñu ñëwee kontaan parce que weer bi moom moo nekk weeram moo tax Barham Corporation jóg ànd ceeg ay mouvement yu bëri ànd ceeg service étatique yi ñëpp pour ñu ñëw set setal Médina Baye bale ko ba mu set si ñaari pàcc lañ ko war a defee premier pàcc bi tey mooy nettoyage général la bale fépp foo xam ne nek nekk wala tilim wa Barham Corporation dañ koy dindi ba mu set wecc ànd ceeg association yu bëree bëri waa mairie bi ñëw nañ waa SONAGED ñëw nañ ministère de l'urbanisme ñëw nañ ak yeneen association yi nga xam ñu ci mel association pour le développement de la fraternité pour le développement de la fayda xam ne chaque année ñooy ànd ak ñoom ci wàllu matériel ak ci wàllu liggéey ñëw nañ ak association pour ñu deuxième jour bi nag mooy suba boobu raxas jumaa spécifiquement la waaw ci loolu aussi Barham ko day baaxoo di def campagne de sensibilisation parce que tay xam nañ la

yor ay sachet di dajale mbalit yi ci biir di ko yóbbu di toppatoo rang yi ku ñu jub nit ñi bu ñu sumee seen yi ñukay koy bu nit ñi fëggee sen dal yi fenn mu am suuf ñu dajale ko bop ko def ko ci mbuus moy moy système de suivi bi nga xamné ba xam Corporation mettre na ko mettre na ko en place ni ñuy seet ni bu gam gi jeexee aussi dañuy seet seetal parce que avant la pendant ak après comme sank ni mu ko waxé ci commencement ñu ngi ci 5e édition yeesal Medina bay ren moy 5e édition parce que depuis 2019 ba légui ñu ngi koy def mu nekk liggéey bo xamné maîtriser nañ ko mais ren dafa am ben contexte bo xamné contexte bi moo réew lu ñu bëri parce que dafa tombé ak le président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye lancé journée nationale set setal moo tax service yi bëri ñu ngi fi si suba ba léegi yaa ngi gis nit ñaa ngi fi bëri nañ fi lool waaye dañoo rencontré benn problème mooy manque de matériel ci manque de matériel yooyu gis nañ ne Barham yu ñu ngi fi yu ci bëri yu ñu liggéey ñun ñoo ko jëndal suñu bopp voilà parce que dañu faral di wax ne Barham Cambérène xaarut kenn ci dara képp ku ñëw fekk nga ko muy liggéey so démé tamit bayé nga ko muy liggéey parce que bayé lañ jublu bayé nga la liggéey. Moi c'est Mohamed Doum je suis le responsable des projets de Barham Corporation. Dans le cycle de la gestion des déchets il y a ce qu'on appelle d'abord euh, produire moins de déchets possible ensuite il faut savoir les collecter et ensuite euh, terminer par le nettoyage le transport. Maintenant l'appel que nous faisons à toute la communauté qui est de Kaolac d'abord, parce que c'est la première communauté concernée, c'est de savoir que tout ce qu'ils doivent, tout ce que nous venons de faire ici, c'est venir en appui. Mais la gestion des déchets incombe d'abord à ceux qui habitent ici. Il faut savoir que jeter des déchets un peu partout euh, ne permettra pas d'arriver aux objectifs qui nous sont fixés. Et aussi, on, fait, on lance un appel également aux autorités déconcentrées et techniques d'accompagner la population en posant des poubelles un peu partout. Certes, on a vu des points de collecte qui sont mis en place, mais il faut une gestion de proximité, c'est-à-dire amener des poubelles auprès des populations, près des maisons, là où il y a des zones de rencontre, pour permettre à ces, derniers-là euh, de disposer des poubelles euh, à proximité d'eux.